mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu di leen siyaara ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu boole lu ndimbalul boppam saayir ak baati di yëkkati kàddu goo xam ni gunu bokk la ñépp lu ci rëcc rëcc maa ngi koy jéggul wax ci lu aju ci njabootu kër gi yombul waaye ku ci Yàlla dimbali dinga ko man maa ngi siyaara bu baax a baax sunu kilifa di bàyyi sëriñ Assane Seck yal na ko yàlla dëgëral maa ngi siyaara sunu mag sëriñ Jibrilu Seck mi nga xam ni jotaayu tay bi bis bi bisama ak nun ca bokkal nun ñim ko bokkal ñépp di nuyu bu baax di siyaara sunu wéy jur wa di bàyyi ñaaxa ak ñam ko bokkal di nuyu sëriñ seexu amadu imaam di nuyu sëriñ alsaan ñaan mi nga xam ni mooy chef de village ñoom dañu kenn koy dangaa am loonu yoral ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di sant waaye di nuyu itam nag bokk yi ñu ko bokkal yi yépp di leen jéggulu bu baax di leen siyaara di ñaan yàlla na fi yàlla saxal jàmm ci barke yontu bi sallallahu alayhi wa njaboot gi nag daje di waxtaan ci ku toll ni Serigne Ibrahima Seck ci bisam ginnaaw bi nu wanee ginnaaw ak léegi ci samsiya mooy juróom fukki at yi mat sëkk buñ ko xoolee ci xamariya buñ àggoon ci kori gii muy juróom fukki at ak benn dund ak sunuy way jur nun nu doon njaboot ci biir xamoo nit nag ni mu jàppewoon woon rakki boppam yi xam-xam bu leer ndax nit bu dundee ci mbir di ca dox ba jël tariixa ci nit ka fekk na mu xàmmee te moo teg salaatul faatiha ci sunuy loxo kon xam nañu ci ak dundam lu bokkut ak lu nu dégg ginnaaw bi ñu ca xamee li ñu dégg kooku wax ci lu nu jafe yal yàlla leeral léppam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa muy koo xam ni sunu wayjur yooyu mën na maa wax ni seen maga woon waaye man na ma wax ni ñépp ci bokk yam nangu woon nañu muy seen sëriñ ci lu ma leer mën nga dem sax ba jàpp ne nangu woon nañu muy seen wayjur waaye loolu ginnaaw bi ko yàlla joxee rakk yu baax li daloon sunu maam ju baax ja yan yàlla doole leeram muy sunu ma Murtada Seck muy maam Taala rakkam ya dar ko ni ñu ko dare ba Ibrahima it loolu la amoon ay rakkam dar ko ni ñu ko war a dare waaye moom nag mu matoon sëkk nag kilifa ca njaboot ga yor seen lépp tangam lu wul seen dara waaye mu jàngal nu boppam waaye mu jàngal nu itam adduna bu fi bàyyi ko nan lan wala dunde mu jàngal nu ko ndax xam ngeen ni at yooyu ku ko dund toog ci xilaafa gi ñaar fukki at ak juróom-ñaar yu tegi weer ba boroomam soxla ko mu yëg ni boroomam da koo soxla day dem ñim bokkal famille bi mu woloon ñoom ñépp fu waay mën a ne oto dalaa jëli indi la mu waxtaan ak ñoom tàggook ñoom ma ni tàggoo booba laa ni buñ ko fàttewul te jàpp ci fii dara du fi jafe waaw ñaata at mayor seen yëf di ci def di ci dindi ngeen ni teg ñu ne ko ñaar fukki at ak juróom ñaar mu ni ak weer ba leen mbaax noo ko bokk te maa ko yoon te ñam doon waxal kenn jëppiwu ko da ko jëfoon ak ñoom summi mbubb ma solal ko sëriñ Alpha du Seck ni ko yëf yaa ngoog yow la ko yàlla jox waaye jox ko ndénkaan ni njaboot gi ci biir kër gi joxeen wu leer te rafet wan rak wan ko ni ko sa rakk yaa ngi nii bu benn loxo banque na ñépp ñëw nga taalal sa loxo ñu teg ci seeni loxo ñu ànd ngir yàlla diina ji nag yoroowuma ko woon bant bu funax kon am na lu koy yor mu ni waaye taalube buumu mu fàllee lañ koy yeewe lu tax taalube yeew boppam taalibe mooy yow boppam moo joxe boppam ci ngëm bas waxtu sëriñ bi bëggee loola di gànjaram rek am na problème na def yàlla muy gànjaram loolu moom lanu sëriñ Ibrahima Seck wax di dem ba mu yàgg mu ni bis boo fi jógee yàlla jëfandikoo coobareem ñi may dugal ca sama kër ga nañu jël ci sama kër baay gii ndaw ba mu xewee ñu jël baay mbay sekk nañ jël ci sama kër baay Ibra ndaw ba mu xewee ñu jël baay taala xaar nañ jël ci sama kër baay ma dikkee ndaw ñu jël ci baay wasee lu xujj ñii sëriñ Isaa Njaay ca mbos na ma taxawe su ma tëddee na ma diw ak diw laabal bis buñ may jël ndawi cekkeen yi nañ ŋàbb ci jaat gi ñu mag ñu nañ leen wër loolu la waxoon kon bàyyi woon na xel li mu moom waaye bàyyi woon na xel ñi mu ko bokkal loolu la waxoon keroog bi yàlla dogalee mu xew ñu daje ni nañ ko def ci jant bi soo ñenn mag ñi gàntu sama lijaay Mor ca la bokk nu bokk waxtaan ni bu subaa ca suba sa ñu koy nettaliwaat wax ji nun ñi ca ña jàppoon ca këf ka ca la nu bokk ñëw ba tuubaa Seck ñu ni nañ ko teg jigéen ñi ñëw baloon teg moom àq ñu soog ko yóbbu maa ngi taxaw maa ngi taxaw biñ ñëwee ña ñëwoon ca jigéen ku ne lañ wax xam naa ko baa jën sama nday aminte si la dani aka gore aka gore mag mu mën a xam na xam dañu tàbbee ngi nii bilaay maa ngi taxaw kenn waxuma ko nag damaa taxaw ñu dem jëli oto teg ko ci oto bi ñu ne bàyyi alfa duggal bàyyi alfa duma dugg alaaji Abdou Aziz mii ñëw duma dugg ci oto muy dox ñu teg ko ca oto ba nu jàppante nun ba àgg ca barab ba fekk fa Baye Sa ñu denc ko noonu la dunde woon ak nun dundin wa doonoon dundin wu rafet doom ni nun rak ni sunuy baay ñépp ñépp nangul ko lépp yal yàlla yaatal aljanaam kenn du fàttali ko bis boo xam ne danga naan bi sàngam nàngam su gàmm jotee day jóg ci kër gi dox dugg ci mbooloo mi waxtu woo séenee bàyyi seexu njaay kaba seen di yaay ali faal soo xoolee juróomi mètre juróom benn ci gàmb guddi gàmm Baay Ibrahima Seck ngay làng Baay Ibrahima day jiitu juróomi meetar juróom benn Baay Seexu Njaay Kaba ngay gis ak ndiyaay Ali Fall boo xoolee ca kanam te xam suñu Ibrahima di nga xam ne ma maa ko fekkee defe naa gaamoom gi mu doon waxee ni génn naa biig gis mbooloo mi sant nit ña gërëm leen waaye mu dénkoon nu as góor de waay du wax lam xam ba mu jeex ndax su jeexalee àgg ci lum xamul day yomb àgg ci lu mu xamul day yomb tetteenu tetteen wu rafet tette sunuy wayjur man sama bàyyi kero bi mu ñëwee daf ma ni ah suñu balaa ma sekk tàggoona defal leen bagaas yi waaye man keroog dama ni maa ngi xaar ba xam kan mooy jël Baye Ibrahima Seck di ko dugal ci suuf jàppoon naa ni kenn ñemewu ko yàlla xam na ko bis ba ñëw ñii ma la wax a ko dugal lépp ni selaw ku bàyyi xel ca loola sa bopp ngay jëkk bàyyi xel keroog sama bàyyi Moussa Seck dafa yëngal tànkam nii suuf sa dal alxaaji Ibrahima Saaxo wala alxaaji Abdul Asiis Si bàyyi Saaxo ni ko xam nga ki ngay xëpp suuf bàyyi ab Ousseynou xar mi ni ko xam nga ki ko xëpp suuf bàyyi laa jàpp si ñu ko bàyyil bàyyil bàyyil waaw waaw su ko defee nag yëf yi lu yomb la yàlla na ci yàlla dimbali Baye Ibrahima Seck daa wax fii ni jën wa ca géej ga de waay ku ko fekk ca biir génne ko ca tefes ga ñu jël ko def ko ci ay dàmbaak yu kenn xamul indi ko ba sa kër jox sa soxna mu togg ba mu ñor nga di ko lekk mënoo ko lekk ba mu set xanaa nga di ca fot boobu loolu yow dong géej jënd jóge géej kon yëf rek la laaj bàyyi la ja ab loo siis ni fii fa tabaarakallaahu defuñu dara mag ñi def nañu lépp lekk doo nga fi des nan fexe mu rafet Cheikh Canam Ahmadou Ndaak su ma bokkul woon ak moom dara te xam ko ni ma ko xame te dëkk ca gànnaar dinaa kange di kange di kange ba bokk ak moom comme bi ma jure waaye fii bu fi dara néewul dara néewul fenn góorgóorlu leen ba ayib ba ayib si wax ko te jeeye ñunu woon dañ doon wax li ñu xam kon nun lu nu war mooy góor-góoru fexe ba ku fi dëkk ku fi bokk nga nekk exemple boo xam ne ku la gis mën a roy ci yow euh, Senghor dafa dem Gosaas ci lii ñu doon wax léegi ñu waxtaan ba àggal sëñ mu nii sëñ Ibrahima mu ne ko sëñ bi yow dangaa xamul politique kóllëre nga xam mu ne ko su fekkee ni politique goree di rekk la waxuma man waaye yàlla bu ko njaboot gi xam te cee na ba sax kon bu nu àdduna yàqal dara nan góor góorlu ci suñu diggante suñuy diggante góor góorlu ci suñuy pas-pas te nag gis ngeen ngeen dégloo bu baax mag ñi seen yaa ayyuhaa yii ñu nuy jiitee waxtu yépp boo ko dee déglu di nga yedd sa bopp ittaqulaa ak ya ca aju temps bi duma ko may waaye xam ngeen uufu bil xuquut temps bi duma ko may ndi xam ngeen mooy mooy rakkaay suba yi ak ya ca aju kon nan delluwaat xam li nu am lan la xamit lan moo nu ko may xam liñ ko war a xañ ak li nu koy may Baye Ibrahima sekk nag nee na jamono jee ngi dégg de waaye da ngay jóg jëm ca ngañ saar te jéeg Modou Seck mën la see foo jëm nga ni ca ngañ saar laa jëm xam nga taxaw nga yow mu la looy wuti nga wax ba àggal mu la ndax jar na ko dina la tardeel te boo sàgganee dina la wàññi jëm nga ci lu baax ca xam nga ko tëju ko ca biirum ne xam lii lu baax la bu la kenn wàññi ku la woon nar a dab waaye bu la kenn dogale la waxoon de mu ni seen pas-pas yóbbu leen ko ca ruux te mooy li yonent bi waxoon ne haddu alayha bi nawaajis mun yóbbu ko ci ruux loxo bu ko fa bëgg a génne takk deret kon nan jël pas-pas yi ci diine ngor ak kóllëre ak nawloonte ngir yàlla dox ci am jàmm bu nu ko deful it du tee gi ñëw waaye noonu du am jàmm te loolu dara jëru maa ngi sant nag ñépp di jéggulu ñi nga xam ni damaa yëkkati kàddu ci seen tur tey njaam su doyodi su ñàkk xam lu bari mbaa xelam neexut maa ngi jégalu ñëpp fépp fu waaye jóge ñëw fi yàlla na nga dellu ci jàmm yàlla na nga fekk sa waa kër ci jàmm yàlla bu kenn fattu yàlla bu kenn gaar kenn koor gii nu jub yàlla nañ ci dugg ci jàmm yàlla nan ko àggale ci jàmm waaye yàlla na yàlla nangul nu nawet bi nu jëm yàlla na ànd ak barke te bokk yi coow li bari na lu ñu ni cher nag bayatunu gorotunu defatunu dara te ku xëy nag soxla lu ñu bay mbaa lu ñu napp mbaa lu ñu sàmm boo ko bayul amoo ko day cher day cher parce que amoo ko nanu fàggul sunu bopp fàggul réew mi loo xam ni su ëllëgee mu doy nu waaye ñëpp bu gëmee ni moo du sekk kenn demul tool ñu doon dem géej mar di taali càmm gi loo denc ñu jël ko nga sàggan waaw boo ko soxlaa nooy def day jafe de buñ ko jiñ kenn na nan góorlu dellu ci tool yi waxtaane mbir mi dellu ci bokk gi waxtaane ko ci yërëmante ngir yàlla léppay sotti loolu mooy li fi am guddal naa yaram si nag neexul jamono bi ni mu dem wax naa fii man fii ay yoon ma ne sëriñ ji bi mii kutaloon ba guddi mu woola ci nun yee la nga yeewu mu jox la ndox doon lii nun doon di nga ko wóolu di nga ko wóolu kon sa njib yaan yàlla sàmm la waaye yaan yàlla sàmm sa njaboot gi wax nañu wax ju rëy ju rafet ju daw yaram yàlla leen ci yàlla gën a dimbali yàlla dimbali nu ci faj suñu aajo saayir rek baatin bàyyi seen yàlla yàlla gën ko fee yàggal mu ànd sutura ak yu ak ci ranga maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi jégalu ñëpp yàlla boole njégalu biir ak njégalu biti